alhamdulillah Assalamualaikum, warahmatullahi wa rahmatullahi taala wabarakatuh TV cosaanu feetu jërëgën wa rahmatullah TV ñu leen di nuyu bu baax a baax mi ak si bitim réew ñu ngi ko doon defee waxtu wu nekk suñ baay suñ xalifa suñ sëriñ suñ lépp Cheikh Baye Fall xalifa Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ñaan yàlla na may fan bu gudd bu ànd ak wér yal na yàlla dimbale ko si kanam mu njaboot gi mu yàgg fi lool ni ñu ko doon defee waxtu wu nekk mu may ñu temps boo xamante ne waxtu yii kaamil yi li ngeen siy dégg si muy leer si internet bi si àdduna bi yëpp waxtu wuñ ñëwee rek mu andil ñu waxtaan bu méngoo ak jamono. tey nag euh, ñu commencé suñu wàllu liggéey si suba si fii nii si kaamil yi ndax loolu mooy aaday Medina Baye euh, sang bi sëriñ bi ñu ngi lay ziara di la ñaanal yàlla commencé si euh, jàmm eggale si alhamdulilah rabbi alamin dëgg-dëgg waxtu wuñ ñëwee rek nga yaatal ñu jox ñu sa temps ñu ngi siy jégalu bu baax a baax tey édition deux mille vingt deux ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla may la bu gudd lool. waxtu wu nekk sa bëggeel sa lépp mooy Mahaboutou Seye Ibrahim yal na yàlla saxal ko si yow saxal ko si njaboot gi yëpp euh, ban kàddu nga amaat rek comme ni ñu ko doon defee rawatina tey si at mu bees mi si deux mille vingt deux bi nga nuyoo ko taalibe bàyyi si biir réew mi ak si bitim réew. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi qadrihi wa miqdaar al azim mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy dégg di ñu gis ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu del si xaat ngeen ci jotaay bu tedd bii fekkaat ñu fii fekk ñu fekk ñu ci li ñu war ñu ngi sant yàlla masuleen a ñëw ñu ne nañ defar jotaay bon loolu maay rafal ba mu toogeek bàyyi mu ne ko luy sa mbit mu ne ko dama dëng bugg a jub dama réer bugg a xam waaye xaadi ndeeb ci doy waaye nag bàyyi na ko man de ku ñàkk fulla rek laa mënti defar mu ne ko dooma wax lu tax baatab lu tax boobu ñun dañoo jàpp ne Mahera Fall suñ nawle la dale mënuñoo xegg ci moom ci ñuul ñuul ab we waaye bëgguñu itam foo xam ne duñ ko fekk ñu seen ñu fa moo tax lam waxoon bàyyi na ko dooma wax lu tax loolu moom lañuy sàmm waxtu wu nekk di bëgg jaami yàlla yépp ne ci di wax ne bés bii bés la boo xam ne dañ fi ñëw di ne meeku di siyaare koo xam ne siyaare koo xam ne ku am cër la ci yàlla ndax ay baay yu baax ñoo ko meññ moom it dundam gi yëpp mu def ko ci fexe ba lim fekk baayam yooyu ci lu baax sànkut ko di huut lu baax daa iman abadan sarmadan ba taseeg Cheikh Ibrahima radiallahu anhu bàyyi ma sut koo wax lu tax lu tax nga dem place sàngam te xebalu la fa lu tax nga def sa nangam te santu la ko te loolu moom la ñuy ñaan yàlla yal nañu yàlla dimbale ba nga xam ne ñu ni tamit bàyyi du ñu wax lu tax duñ wax ne Baye Baye jógee na fi déedéet wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yursaquun bu leen jàpp ne bu leen jort ne ñi nga xam ne dee nañ ci yoonu yàlla ne ñoom ñu dee lañ ñoom ñu ngay dund fa yàlla bon Cheikh Ibrahima tam xayaatul abadi lay xam ba léegi ni ñaa ngi koy gis muy wax ak ñoom ñuy wax ak moom mu leen di régleel ay problème ni ko Seexu Tijaan di defee ba léegi ni ko yónnent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di defee ba léegi ni ko seeni xulafaaw di defee ba léegi ba ñooñu deexuñ looloo tax be ñu ngi wax ne da ngaa wax ne lan lay dénk jaami yàlla bal lan lay denk sama bop moy waxtu wu nek na nek ci mushahada waxtu wu nek na horne yalla ne jakar ngi man di gis di deg limay def ak limay wax waxtu wu nek yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngi man di gis di deg waxtu wu nekk xulafaa u yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jàkkaarleeg man di gis di dégg noonu nag la ko ku nekk war a defee in lam takun tarahu fa innahu yaraak soo xeggut ci maqaamaam tang bu nekk ngay gis yàlla te xam ne man li may gis yàlla la mu ne na la ne yàlla moom mu ngi lay gis tax be ba ngeen dikkee daaw ak daaw jéeg ak ren ak déwén itam dañoo bëgg ak déwén jéeg ngeen fekkuñ ci loo xam ne duñ soppi jotaay duñ soppi jotaay ndax soppi jotaay mooy lan ñu fekk la ci lu la warut ñu fekk la ci luñ la xaaye loolu la ñuy ñaan ñu ñaanal ñu yàlla buñ ñu fekk mukk ci loo xam ne warul ñu loo xam ne suñ baay ak i baayam suñ baay ak sëriñam di Cheikh Ibrahima ak baayam Alaaji Abdoulaye ak seeni baay suñ baay ak sëriñam Cheikh Ibrahima ak ak baayam ak seeni baay suñ baay ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne masuñ koo fekk ci lu dul noonu ñun dañuy ñaan ñu ñaanal ñu yàlla buñ ñu fekk mukk ci lu dul noonu loolu nag balaa ko nitaa def dafay xam lan mooy li ko war benn dafay xam lan mooy xàqam benn soo jàngee lu droit dañ lay wax ne sa xàq mu ngi xem ci fi xàqi jàmbur tàmbalee sa mu ngi xem ci fi xàqi jàmbur tàmbalee soo demee ci droit loolu lañ lay jàngal waxtu wu xàqi jàmbur boo duggee ci xàqi jàmbur rek yaa ngay tooñ boo duggee ci xàq jàmbur rek yaa ngay tooñ te ku tooñ mën naa am loo xam ne lu dul noona la ci missaal mbedd mi nga xam ne moo jaar diggante kër baay ak kër baay Mahmoud mbedd moom moo doon yoonu Kaolack gannaaw gi lañ ko toxal fi tali bi nekk tey mu nekk route principale bi waaye route principal bu Kaolack moo doon booba dem ba dëkk ba Amat Saloum sow buur la daan jóge koo Kawlax junju ngam yi topp ko mu jaar ci mbedd moomu ci gannaaw kër baay benn bés baay dégg ko muy jëm coofok ndax foofu seen dajee kaay la woon seen mërkës la woon guy xàmbi ca lañ daan defe dajee di def seeni mbir baay dégg tëgg mi ne waaw loolu lan la ñu ne ko Amat Saalum booy Amat Saalum Sow day moo fi jaar jëm coofok mu ne ne leen ko bum jaaree ci sama dëkk bi ak tëgg ci mbedd mi la ne de waaye xamul na fi mu ne jalgati na ba nekk ci dëkkab jàmbur beneen yoon mu jaaraat fa nam fa daan jaare ba bàyyi déggee tëgg ma dafa waaxu ak doole ñëw fekk mu ca kaw faso daf koo téye fekk mu ne dërr ci suuf mu ne ko neexoon naa la bul jaarati suma dëkk bi ak tëgg bon moom dafa xàmmewut fa xàqam dame dale ak fi xàqi bay dale fi xàqam xem ak fi bàqi bay dale loolu la xamutoon moo tax mu dugg ci xàqi bay bàyyi tam xàq ci moom lan xëcc ko nga xane moy jëm jëmmi donu doon yalla yàlla sallallahu alaihi wasallam bu hege bay xëcc diko daane ko ci mu joge ci kaw fasooy daanu ci suuf mbaxana maag yam takkon yépp daal daanu dafa dugg ci haq keneen bon dañoo wara xam suñu haq fan la hem ak haq keneen fan la dalé bu njëkk ay 60 bi fi Senghor di nek suñ toge ba 11 heures ci guddi da ngay dégg ñu ne wàcce leen wàññee leen seen rajo yi benn su ko defee itam na dañuy wàññi émetteur bu mag ba nga xam ne moo nekk ca Dakar boobu rajo yi xamaguñ fi Dakar rek am suñ ko wàññee loo hubbi hubbi sa rajo du jëm kaw pour lan bañ nit ñi jógee ko ci seen xàq ba jéggi ko dem ci xàq jàmbur bon ñu ngi ñaan yàlla yan nañ xam suñu xàq fan la ñun jullit lañ soo demee ci tiim xabru baay da nga fa fekk làmp boo xam ne ñeenti parti ñaar ñii ñooy ànd dañuy tàkk rek duñ fay ñaar ñële nañ leen defaree dañuy xuy xamaj bi ci suuf bu xuyoon xamaj rek yàqu ah ñu ne ñu ne làmp bi yàqu na ba ca kaw bu tàkkoon daay man rek ñu ne làmp bi yàqu na parce que lañ ko defaree du noonu bon kenn ku nekk na xam man liñ ma defaree lan la ñaari làmp yee ca kaw dañuy xuj xamaj ñoo tuñ xabru baay bi kuy xamaj kuy xamaj kuy xamaj noonu lañ ko defaree ñaar ci suuf dañuy tàkk daayi man bon lu nekk wa fii am fusikum afala tubsiruuna loolu lañu ñu alquran wax daa iman da ngaa war a xam yow yaay kan soo xamee maay kan danga xam li la war lan la soo ca xamee doo tooñ kenn du la tooñ yenn yàlla dimbale ci loolu bon nit ñaa ngi dikk ci place boo xam ne koosi la nga xam ne Baye daf ñëw ndax baayam daf fee ñëwoon ndax tubaab yi ñoo ko mayoon ne ko demal seeti foo xam ne bolok ko maanaam bolokaar moo ko waxoon seetal foo xam ne doo ñu sori nga fay nawet di ñëw di noor si fii mu tànn kuu si moom maam ndeke tànn googa tànn lan la faydatul ibrahimiya ak tijaaniya fi la wara a lolou mu ngi xam ci mag ñi man nañ ci jang ndax man nañu jang ci ñom ndax mawdo Sidi Alaaji Malik ba mam Alaaji jógee ko fas, jaar ca mom daf ko fa téye ay fan ndegete dafa bind borom ndar lettre ne ko Abdoulaye Niass mi nga xane mu nga jógee ko gambie te waa Sénégal la su ngeen bañe ñun ñepp ñu dem Gambie téye leen ko fi ba commandant blocar bam mu ci lettre ba ba commandant euh, euh commandant bu mag ba bam mu ci lettre commandant déedéet cercle bi mooy bi nekk wax mooy blocar waaye commandant général bi nekkoon Saint-Louis bi nekk Saint-Louis bam ba ci lettre dafa bind commandant cercle bii nako Abdou nyaay Niass bu ñëwee fexel ba tiyé ko lum la lum la ko jaayé rek jënd ko ci lañ ko mayé mu dëkk ñaseen ci lañ ko mayé muy ñëw ko ci di fi nawet di dem du noré Kaolack ndekete bobu yalla ngi préparé ci gi pour mu nekk mazharu place bo xamné ci la faydatul azamu faydatin fi mu gëna mag ci hadina yépp ci àddina yëpp ndekete fii la war a doo moom la ñu bàyyi wax ne ca ñetti baytim ya waaye ba ñu ci gën a xamal solo mooy ne faydu dana xam faydu bi gën a màgg ci far yi yi dana xam te suma saxaaba yi ñoo ko moom waaye nag xam na loo xam ne bàyyi sasoon na ko mag ñi booba ne leen aleykum bi tahzibi nufuusi wa chamiru li idraaki maqat faata aqla aqillu bi góorgóorlu leen ngeen wogosu ngir lan jéem a jot li nga xam ne góor ñi nga xam dañoo namoon yàlla te taseexuñoo kaamilo as si bàyyi xeegut foofa ndax buñ tasewoon a kaamilo as danañ xam yàlla danañ ko xam waaye ñooña lañ dem ba dox ba seen dund jeex ca te xamuñ xamuñ yàlla yéen ngeen fexe ba xam loola jiitu loolu itam Baye Omar Fatou Diallo nettali nañu ne Baye daan na leen wax te boobu faydo xewagut jàng leen ndax faydoo ngi ñëw da soxla xam-xam faydoo ngi ñëw boo xam ne da ngeen soxla xam-xam bon faydo bi dikk na ku xamul xam-xam dañ la laaj te doo mën wax xaama te boo waxee danga wax lu dul noona loolu yàq lay bicc benn bàyyi wattu loolu ñu ko ñu ko nañ xam ñii gone nañ jàng nañ dem ca daara ya bàyyi mu ne gone ca daara ja mag ca jàkka ja nit ku bon ca kaso ga mu ne loolu bu xamee rek jàmm am bon gone yi nañ jàng nañ jàng fexe ba xam Baye Mbaye nee na buñ xamee danañ def nit ñi ñuy nit ndax waa ji lim lay wax nga foog ne ndax feneen la jógee ko boo jàngee ba xegg fam ko xamee da nga xam ne xay kiifa dem ci téere bu ma demutoon rek bon gone yi nañ jàng suñ jàngee ñoom ñooy doon magi xëllëg yi te bon magi xëllëg yi su fekkee mag ñu xam lañ danañ teg lu nekk fa mu war a tegu su boobaa jàmm rek yan ñu yàlla dimbale mag ñi nañ jaamu ci yàlla baay bi muy nekk fii dundam yépp ci diggante jàng jàngale jaamu yàlla la ko def nee na it kat loolu mooy carte dante ku bëgg a dëkk ak moom mu ne suma dëkkandoor mooy ki nga xam ne suñu xootee ci jàngu bi gis la suñu xootee ci liggéey gis la suñu xootee ci jaamu yàlla gis la mu ne këw mel noonu suma dëkkandoor nga keneen du sama dëkkandoor bon liggéey bi pour lan la bàyyi si seen kët ku ca fanaan xëyuloo liggéey bu kët ga tase yaa ko tas bon nit dafay liggéey su liggéeyee ci lay xam lum suturuloo ba du laajte laaj keneen leneen ci lay xam lum suturoo ba mën a garder ngorom ci lay xam lum suturloo bokk jàmm bi yàlla bu dikk ci moom bëgg ndimbal mu mën laa dimbale bon liggéey foog mu xam ndax yàlla wax nañu ne binduma leen ngeen di jëmm yoo xam ne du ngeen lekk waaye bon gannaaw si dangeen di lekk bon da ngeen a liggéey pour xam bon ñu ngi ñaan nañ def ci suñ xol yi ak suñ xel yi ne fii di Kossy fële di Medina bàyyi fële di ba place la yoo xam ne place yi defarookaay la feneen fudut foofu itam nag palaasu su defarookaay lu Baye wax Baye si seen nettali nañu bàyyi ne na ku dem fa ñuy defaroo nga yàqoo fa moo fuñ lay defaree ati Hmm? fooy defarooti gis nga ñenn woon ak yonent bi di ko gàllankoor ñooyu ñoo ànd ak Seexu Tijaan di ko gàllankoor ñooyu ñooy ànd ak Baay di ko gàllankoor ñooyu ñooy ànd ak képp koo xam ne ku xaw yoon wi ñooñu xawoon la di la gàllankoor rek xamul leneen Xamaalatul Xatabi ndaw soosu nga xam ne jabaru Abu Lahab daf daan jël banti xeer ak banti yeeg dëgg yi di ko def ci yoon wi yonent bi jaar dem ci jàkka ja képp kuy gàllankoor kuy jëm ci yàlla rek soo xeboo xam ne yow ca palaasab kooka lañ lay classé Abu moo moog Abdoulaye ñoo bokk ndey baay ñoo bokk hmm? waaye ñàkk a defaru xolob Abu moo tax ba bàyyi ne na ba muy deexaat sax dafa yàqu ci feebar boo xam ne feebaru wàlle la ay bàjjoo lañ fay maanaam ay ñu tumaranke ñoo fexe ba génnee ko néeg ba sànni ko ci aw kàng ba mu ne niñ ko suulee sax mooy ku nekk rek dangay ngay jël aw xeer rek sànni ca ñu fay la mu ne man mii sax sànni naa aw xeer ca kawam ku bokk bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sa place di foofa lu ko waral ñàkk defaru xol su sa xol defarul doon nangu dëgg defaru xolam salmaan mu dëkk ca faaris defaru xolam moo tax yonent bi ne salmaanu min naa xemut ci ñun jullit ñi de waaye min naa alul bayt loolu defaru xol la xol bi bu defaroo dafay sant cër yi ñuy wax lu waxu hmm, di def lu defu su sol bi xol bi defar wut xol bi dafay sant cër yi ñuy def lu defu wut di wax lu waxu wut su ko defee wax joo wax rek di gën a sori bi yàlla bi di gën a sori jàmm di gën a sori ñooñ jàmm place bii ñu dikk na palaasu defarukaayu xol la lu tax ñeent fukki jullit fu ñu dajee xaasatan ñuy ay taalibey baay xaasatan ñuy aarifiina billaahi waliyu yàlla ngi seen biir te waliyu yàlla su ñaanee yàlla nangu su keneen ñaanee bu ne amiin yàlla nangu bon palaas bi ñu tasee ak ba ñuy tase yi suba ca Tayba ci siyaareeb Alaaji Abdullahi ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ci suñ kanam comme siyaareeb dugub bi ñëw ci ajjuma ji ñëw ak décoration bi nga xam ne Cheikh Mahi dana ko décorer baraam yi nga xam ne ñoo xuy soon Cheikh Ibrahima cinquante huit te man ca laa xool bon place yooyu place defaroo kaay la soo demee ba ca palace yi defaroo nga yàqoo fa nag moo yow fuñ lay defaree yaati hmm? dana jafe de. bon yan nañu yàlla defar gendeeku bu nekk rek yan nañ ca seet li ñu war ci wax ak ci jëf ñu def ko su boobaa gendeeku boobu ñun ñoo ko moom waaye su fekkee ne gendeeku dafa ñëw nga wax ci loo waxut hmm, mbaa nga def ci lu defuwut xam nga fooy mu jëm unsuruna naqtabis min nuurikum wane woon nga ak njullite waaye xool ba gëmut ko woon loolu moom la ñu tuddee ni faaxu wane lu bokkut ak la nga nëbb suñ demee ba siraat leer gi nga xam ne mooy leeral buum googa ñoom it dañ cay xam si dara suñ doxee tuuti leer ga jeex ñu ne jullit ñi waay waay geesu leen ñu waay ñu ñu këf dara ci seen leer gi julli ñi tontu leen ne leen irji'u waraakum faltamisu nuuran leer duñ ko xamee fii de foofa bun mbaax fii lañ koy xamee njub fii lañ koy xamee sa tey bii ñu ne bàyyi def ne olof ne na insaan maanaam nit doomi bésam la walla doomi xatam la di bàyyi ne déedéet insaan ibnu waxtihi la sa bii nga toll muy dix heures dix heures bii yaa ko moom loo ci def ci lu baax lo ci defut ci lu bax raw na la nañuy dundé nonu diko top heure par heure seconde par seconde minute par minute nga xane bu xasse dem dotuñ ko jot lañ ca defoon ci lo xamne lu dul nona occasion ben rek lañ mën a am mooy tuub yalla jéggal ñu ci te buñ tuubee xamuñ danañu jéggalam déet waaw bon ñu ngi ñaan yalla yalla yalla do suñ dimbal ko buñ jaar rek yan na gendeeku boobu dooloo xam ne ci suñ dund la nekk nga xam ne daf ñuy jegeel péeb yàlla ba ñuy dox ci gannaaw ñi nga xam ne ñoom wóor lañu ne ca péeb yàlla ba lañ xegg fii ci caalan gii lañ suñ bàyyi nett leene dañooy liggéey ba tàkku jot bàyyi ne nañ julli bañ jullee ba sëlmal benn waaye daal di liqaam bàyyi ne ko aa ah, ba mu sëlmalee bàyyi ko ah yow loola tëree ànd ak man ci julli gi mu ne ko ma doon wàcc mu ne ko xanaa xamoo ne man maftuhu alayhi la wa maftuhu alayhi salaatuhu maqbulatun wa salaatu man maahu ala ayati xaalin loolu mooy lan mu ne dama doon defaru mu ne ko xanaa xamoo ne man maftuhu alayhi la ku yàlla hubbee laa man ko xam fatu akbar laa ku am fatul akbar ku yàlla hubbee jullim yàlla daf koy nangu ak jullim képp julli képp ko ànd ak moom ak nu julli ga mën a mel looloo tax maalam tijaani bàyyi dem Nigeria ba sa àjjuma jot bàyyi ne leen dem leen julli ji ñoom ñu dem julli ji chariatu lim la may yow buy a ajjuma da ngay xaar bañ julli ba sëlmal ci jumaa ji yow nga door a julli tusubaar bi gaañu sëlmal ba gaaw del si xaat ci baay bàyyi daal di liqaam commencé julli maalam tijaani taxaw ci gannaawam bëgg a julli benn waay ne nii ci daraa ji xëcc ko maalam tijaani daal di bës bi xëcc daraa ji wax ji bàyyi waxoon fekkut ko fi de fii ci caalaan boobu di ko gut waaye ba mu sëlmalee ne waa ji yooyu loo may xëccee mu ne ko ayoo da ngaa julli fële ci jumaa ja pare mu ne xóorul ma ndax suñ julli googu yàlla nangu na ko waaye julli gii may julli ci gannaaw baay moom wóor na ma ne moom bàyyi jullim nga nangu na ko bu dañ nangu xaale sama gos bon yanu yàlla may ñuy dund dund goo xam ne waxtu wu nekk ñuy seet la gën a rafet moom xamoon na lu rafet de parce que bàyyee ko xebal ne ko demal julli juma mu dem julli ji ku ne xam na xam na ne xam na lu rafet waaye xam na lu gën a rafet muy lan waxam ji ñu ngi koy nett li ba léegi ngir lan lim ko xóor ne julli ci gannaaw Cheikh Ibrahima moom julli guñ nangu lay doon bon yal nañu yàlla dimbale ñuy xam daa iman lu rafet di xam daa iman lu gën a rafet loola yal nañu yàlla may sens ku xam sens mooy kuy def loolu te sax ca du nga def ko tey ba ko ëllëg nga defar fii yàq fële waaye ku xam sens mooy xëy da ngay sax ci lu baax am taw tawfiqun min allahi bàyyi def ñu nettali ne wala boog nettali bi xeg si na ci ñun ñu ne benn saalihu walla benn saalihatu nit ku baax ku jigéen dafa dox dem ci dëkk guddi la mu xegg fa guddi daal di seen kër goo xam ne xaw na koo xemem mu dugg ci kër ga daal di nuyuwante ak borom kër gi na ko man de dama tumaranke ribatun man dama tumaranke ma bëgg ku dimbale lii wacci leen leen ko xale yi rek danañ ko defar léegi waaw dégg nga mu ne ko man dama tumaranke te guddi jot na ma bëggoon ku ma fat ba suba te man de shérif la waa ji ne ko demal indil ma luy wane ne shérif nga burhaan indil ma preuve neexut a wax ndaw si génn kër gi demal indil ma preuve bu wane ne shérif nga ah ndaw si génn dox ba yàgg mu gisaat geneen kër xelam dal ci mu dugg ci kër googu mu dugg ndege kër ak yexóot la dugg ba mu duggee nuyu boroom kër gi ne ko man dey tumaranke laa te ma buggoon ku ma fat ndax guddi na fi mu ne fi ne la mu waxoon ne shérif laa du ko wax fii na xamaan na ñu laaj ko lañ ko laajoon hegut fofu yohot bi dal dina ko marhaban biki wa ahlan dal di ko hutal néeg defaral ko ko jox ko li wax ci ko li war ci ko xamne ne ku ko soxla la ci gan yohot bam tede ba gudi mu gent gis yonent bi sallallahu alaihi wa ne ko kooku nga fatkat sama seut la yohot bi dal di ci wa ndaw se rek bi mu ci fajar ji tàllal koy loxoom ne ko maa bëgg a dugg ci diine ji man gis naa yonent yi mu ne sëtam nga mu dugal ko ci diine ji waa ji itam ndeke ci guddi gi nelaw na gis yonent baa ngi taxaw ci déegab karsara di tànk di jox ni ñi ñuy naan moom itam mu daal di bokk ci ñi nga xam na ñu ngi jege yonent bi bi mu ñëwee ba xeeg si ba jege daal di tàllal bugg a naan yonent bi ne ko indil ma luy wane ne ci sama xeet nga bokk waa ji ne man kat la ma waxoon ndaw sa la ma yónnent bi dàqee di nandal sa eh, sahabaam yeeg te eh, jullit ñi nandalut ma mu xëy rek nee na dabaatal boog toppkat yi man dama xamoon gan goo xam ne fa génnoon biig te gisaguma ba tey di dem ah koog de gisuñ ko ba xam ku ne ko ah seenoon naa ko muy dugg ci kër yi xóot bële de mu daal di waaxu dugg ci kër Yahud ba daal di ko nuyu ne ko man de maa xamoon gan gu may seet mu na ko rëcc na la sa gént gi moo la jaaxal ndeke Yahud bi yàlla xamal na ko sax ne waa ji gént na yàlla di naan yonent bi di nandale ci géew Kaysar mu ne ko sa gént gi a jaaxal gént naa gént gu ko jiitu te gën a leer sa gos gis naa yonent bi ci guddi gi mu ne ma kan gi ma dalal sëtam la bi bër setet tàllal naa ko samay loxo sanama ponki lislaam ba man fi mu ne juli laa doxatuma yahut demal gi gan rëcc na la bon yanu yàlla may sens sens mooy lan boo demee foo xam ne dara nga fa nga wut ko sooy jiixaat maanaam dikkisaat ba dem koo xam ne toolam dafa wowoon a ah, jot nga palaas de war nga fa mën a xamee gerte ah ci soo xamee sens. aleykum salaam wa rahmatulah aca na ñëw waaw. waaye boy doxa doxa dox ba yegg fi ni fu melni ni ci gi ci bes bu mel ah xam nga fukki sens fukk nga am ma junney sens sag ñak sens moy lan nga nyonyo, ci leneen lo xamne da nga xojal ñoño ba duñ mëna def sax seen awradi ci nit ñi ak jinne yi ndax yalla dafa yónni yónnent bi sallallahu alayhi wa ci nit ñeeg jinne yi bon kuy xalifaab yónnent bi rek da nga jëflanteeg ñoom fii sama baay nee na daanaka li baay tarbiya yëpp fii la ko tarbiya ñeen fukki naar ak nangam ne teg na ñaar fii lañ deexee kilifa yu mag yëpp fii la leen baay defaree olof ak naar ak hausa ñëpp fii rek ñuy fekk bàyyi mu defar leen bon fii defarookaay la waaye ku dikk ba ci place am defarookaay nga yàq ko fa fuñ lay defaree xati ah ataibu mina zambi kaman laa zanba lahu wax bila bi mu ne ku tuub ci bàkkaat mu ngi mel nii ko amut bàkkaat waaye nag alquran wax nañ sart tawbatu boo innama tawbatu ala llahi lilladina suu suua bi jahalatin sarta baa ngoog de bu njëkk bi dangay def loo xam ne lu ñaaw la waaye da nga koo réeree waxtu koy def dugut maa tey de ma tey di ko def nii laa koy defee te fii laa koy defee kum neex kum naqadi loola moom ah yàlla boole tuddul loolo ci alquran suu abi jahalatin la wax mu ne su ma yatuubuuna min qaribin soo xamee ne man lii ma def duut lu baax nga tuub mu ne ñooñu day yàlla dana leen jéggal waaye ak lu mën a xew ñu ngi ñaan yan ñu yàlla jéggal yan ñu yàlla jéggal nañ def te daa rukk nañ fexe ba seetlu li ñuy def ndax mag ñi noonu lañ ko daan defeem déet te mag ñi fañ xegg foofu lañ bëgg xegg ñooy suñuy kem est-ce que fii lañ daan jaar feeg yaa ngi gis tànki ki nga xam ne moom nga topp ci kaw mu naan la dimb ga ak sotoga ga soo ko rombee da nga jot eh, beet ga da nga jot nangam feeg ya ngi gis mandra ga yim la xamal ne mang ci yang ci yoon waye su fekke ne àllama yi la wax gisoo ci dara mom penku la jëm yow nga jëm xarfu hey kañ ngeen di tassé buñ nax suñ bop buñu kenn wax lo xamne lu du nona la lu wuuteeg ak liñu su bàyyi daan def lu ak li Cheikh Ibrahima daan def li wuuteeg ak serigne Cheikh Ibrahima daan def ñu rek ko def yonent bi dafa ne ci këtam sallallahu alayhi wa sallam ah njaboot gi di def lu dul noona di ko xojal di ko tànqal mu xaaye leen ñu të Aboubacar xëy ñëw nuy si ko fekk jigéen ñaa ngi ca loola mu xaaye leen ñu të ñu toog tuuti rek dégg tëginuy Omar ibnul Xattaab ba muy jege kër gi ñu xam ne kooku Omar la jigéen ñi ñëpp ba lañ doon def kenn ku nekk dem làqu ji sa koñ ba mu dikkee ba nuyu yónnent bi nuyu Aboubacar Aboubacar ne ko ah Omar de man yéem naa la ñun de lii foy fa te yónnent bi tëma <coughs> yow demagoo fenn sax duggoo sax si biir kër gi déggoo sax li ñuy wax foog naa yónnent bi ne ko duhun man ñu de ñun ñaar manut ma manut laa waaye nag jigéen ñi lañ doon def seytaane leen ko doon digal te seytaane su nekkee ci bopp mbedd mi Omar ibnu Xataab ne ca boppu mbedd ma lee dafay tourner seeti xaan meneen mbedd ñoom ñaar duñu xaan tasee ci mbedd bon kuy def lu du sariatu seytaane la koy digal ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa salaamualeykum wa jëf mbokk allah yi xalifa Mawlana Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal yàlla fan bu gudd lool bu ànd ak wér defe naa dégg ngeen ndénkaane yi waaye dégg ngeen digle yi waaye dégg ngeen yoon bi nga xamante ne nii fa la Mawlana Cheikh Ibrahim awale woon mag ñu baax ña ba tey jii nii mooy wax jëm ubbi woon wax ji mooy ku wàcc sa àq bu dugg si àqu jàmbur la la say fekk dégg nga Mawlana Cheikh Ibrahim ni xëccee woon waa ji doon jaar sa mbedd ma di def naka sudut noonu Amar Saloum Sow mu xëcc ko dafa naa dëgg dëgg ni mu ko waxee mooy weer muy Mawlana Cheikh Ibrahim xam ne aji yërmande la su demee ba xëcc nit rek su boobaa kon am na jëfin boo xamante ne kooku wàcc na yoonam kon dëgg-dëgg li yëpp ndenkaane yoo xamante ne mooy li may wax sànq rek buñ fi ñëwee rek dañ amaat lu bees saa buñ dikkir dañ am yokkute yokkute yooyu yëpp nag ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi lool ñu yàgg fekkee jotaay yu mel nii nga yàgg ñoo digal lu mel nii waaye li sa jiitu te njëkk ca mooy yal yàlla may ñu dégg ak topp waxtu wu ne ma xamante ne saa soo ko kàddoo rek jaami yàlla yëpp eggandoor sax defandoor ko defe naa lii lu bees la lii message boo xamante ne ni la àdduna yëpp war noo mën a bàyyi xel xalifa bi kàddu gii mu yëkkati defe naa ñun lii mooy suñu ziyaara kon ndax defe naa yaatal gii eh, mbooloo ma dajee amaana lépp duñ ko mën a indi ndax temps beeg xataay gi mooy tax du mën a nekk kon dëgg-dëgg message bi ñu amee fii tey ñu ngi sant yàlla bu baax beneen yoon di wax ne suñu maam la suñu xarit la suñu lépp la lurut lii fépp fu ñu dajee rek ñu ñaana yàlla ñu ñaaxaat danañu soññaat si liggéey bi loolu mu nekk mbégte ak contentement ndax xam na ne télé bi seen télé la ñoo ko moom muy Kossy bi kon tey bu dikkaatee fii ànd ak ñoom sa ba dara dara ba tey jii tey bagage yi di yokk liggéey bi di yokk mbooloo mi di yokk dëgg-dëgg liggéey moo laana Cheikh Ibrahima moo yaatoo nii te moo egg si fii nii kon yàlla yàlla dimbala ñu si saaxiran ba baat nan wasalaamu aleykum wa rahmatullah si kanam tuuti ñaax ki nga wax mooy fàttali leen rek ne siiw na ne ku sa borom la man allamaka harfan fa huwa mawlaaka yéen nag yemu leen ci loolu fuñ nit ñi tasee di def mu daara sante di waxtaan ngeen toxal ko nit toog ca néegam ak lum sori sori sori sori dégg ko bon kële moo jàngale waaye yéen yéen a jottali kële moo jàngale waaye yéen yéen a jottali su taxu doon ak yéen ki nekk New York du dégg wax ji kene feneen kene sax dabaan gii du dégg wax ji wala kene sax beneen kër ci si du dégg wax ji waaye nag ñu ngi ñaan yal leen yàlla fay yéen a ngi wuuti jaamu yàlla yi ci luñ bëggoon te manuñ ko ngeen dimbale leen ci yal leen yàlla dimbale ci lépp loo xam ne lu ngeen bëgg la te mënu leen koo defee na ngeen ko bëggee yal leen ko yàlla defal ki nga xam ne it moom moom télé bii dafa xam xam-xamam yéen ngeen xam seen xam-xam den bëgg fu ngeen tasaare xam-xam bi moom mu bëgg ku ko tasaareel xam-xam bi loolu moo tax bi ngeen dajee yéen a ngi mel ni ku bëgg ku ko wéttile ak ku bëgg ku ko hubal bunt bi waaw ku bëgg ku ko wéttile ku bëgg fu mu fanaan ñoom ñaar ñu ne hubal bunt bi du leen euh, jaxase bon ñu ngi ñaan yàlla yal leen yàlla dimbale gën ci ndimbal dimbalal na leen sax waaye ndimbal loolu yan na sax yan gën a mat ci barke bi yonent yàlla mu mat yan na yàlla def ko ba muy nekk rajo bu ñuy déglu nekk télé boo xam ne dañ koy gis itam fa ngeen bëgg mu xegg yàlla xam na ko mën na ko yana leen fa yàlla xeggale yaa nee na mi nga xam ne moo leen di dimbale itam ak képp ku koy dimbale yan na yàlla gën koo dimbale te fay ko yool bu rëy ci lii yàlla mën na ko yan ko yàlla def yan na ñu def yàlla def ñi nga xam ne suñ déggee dañuy topp la gën a rafet àlla si na suñ déggee jëf dañuy topp jëf ji gën a rafet ca lañ dégg su ko defee suñ déggee wax itam noonu lañ koy defee bon wax joo xam ne gis nañ ko jëf joo xam ne gis nañ ko wala wax joo xam ne dégg nañ ko la ca gën a rafet yan nañ ko topp su boobaa kële mooy mudarris bi waaye yéen yéenay ki nga xam ne moo ko jottali waaw yéen yàlla def loolu arabi yàlla may leen wéet may leen xubbee may leen xam-xam bu mat ba nga xam ne lu ngeen di def da ngeen xam lu ngeen koy defee yàlla boole ñu ci ñun itamit may ñu hubbee ci xam-xam mu may ñu hubbee ci xam-xam itam ba lépp luñ bëgg a def ñu xam luñ ko mën a defee yàlla mën na ko yal na ko yàlla def yaara bi jaami yàlla yiy dikk yal na indi leen ci jàmm ñu egg si jàmm ci palace bii nga xam ne man Baol Faydati la su ko defee nekk fi ci jàmm ba delluwaat ci jàmm wucc fi jàmm ñu ngoy ñaanal ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi yàlla jox leen yoolab ku mën a dalal gan goo xam ne ab saalixoo ko saalixatu la yool bañ cee xamee yenn leen ko yàlla jox ñun ñi nga xam ne ñoo dikkadi ay ganit de lee fii laa juddoo waaye tenaxut gan laa fi su ko defee ñu ñuy gënal ñu ñuy gënale ñu ngi ñaan yenn leen yàlla jox yool boobu yennañ dellu hànd ak ndërmande yàlla ak ngërmandeel yàlla ak yërmandeem loo xam ne du xam xàpp yaara bi ku fi ku fi dikk lo man ren bu déwénee ne na nga man junem ci barke bi yonenti barke salaatul fatih barke bay ak bayam yalla yalla haad war way bañ delu ci jàmm yalla bu ci ponu sax toj yalla bu ci dara xew lo xamne ne luy indi jëye la bañ delu haat ci place ya nañ fa joge ko hon hand ak yermande yalla ak ngërmande yàlla yu bëri jërë jef jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen wa rahmatullah macha allah kon fi lañuy daldi yemal rek jotaay bi xam na incha allah wara rabi eh, ñu continué waat dugaar si waañ bi yeeg barab yi nit ñi di ziare ndax fii mooy koos yi ni mu ko waxee mooy man Mbaxol Fayda kon dëgg-dëgg ubbil nañu bunt bi mën nañoo delluwaat si yaatalaat liggéey bi ndax fu nekk rek gan jógeekoo na fa ngir lan ñoo jaayante seeg Mawlana Cheikh Ibrahima Fall waaye yal na yàlla dimbal lañ ñu sëriñ bi bu baax a baax ni ma koy waxee rek boo ko fekkee soroon xalifa bi nii la boo ko fekkee soroon jumaa ja nii la boo ko fekkee sa dog ba sa jumaa ja nii la boo ko fekkee sa maanaam wasifa ba nii la kon yal na yàlla may ñu toogaay bi nga xamante ne wala li nga koy ñaanee yàlla bu ma a soppee suñu toogaay waxtu wu nekk rek ñu nekk si Mawlana Cheikh Ibrahim si ay digleem ak i tereem ñu mën koo baax ak yonent bi sallallahu alayhi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen

barxama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV